waaw waaw. ci ci bi woo mu ngi wax ak ñaari mbëri. li règlement bi nangu ak li mu bañ dox ci diggante lakkantaan ak Billy Boy moom ngeen jàkkaar lool lakkantaan moo la woon ginnaaw lakkantaan cokkaas waa lakkantaan lu mu nar da ko bëgg a lakk wala déet lakkantaan bili booy lakkantaan bili booy lakkantaan lakkantaan bili waaw bili booy moo dégg bopp ña ngay xeex Babacar ña ngay xeex lakkantaan ak bili booy combat bi du yomb lakkantaan bili booy lakkantaan daw na dóor bili booy sàcc ko bili booy jël na ko ci suuf ñoom ñaar lu nar a xew lakkantaan map na bili bañ na lakkantaan bili booy yegg nañ suuf jugaat lakkantaan Billy Boy ña ngay xeex ña ngay dóor dóor mu daanu wala déet lakkantaan a dóor lakkantaan a dóor waaye Billy ngay fayu Billy ngay fayu xale yaa ngay xeex lakkantaan Billy Boy lakkantaan Billy xeex lakkantaan Billy Boy Billy Boy dóor ci suuf lakkantaan dóor Billy Boy fayu waaw nii la lambi dóor fayoo ko tas lakkantaan Billy Boy lakkantaan Billy Boy lu xew arbitre yi ngi xool di changer position lu ñu bëgg a xool ba xam na ku dem ardo wala déet lakkantaan da Boy ndaysaan lakkantaan Billy Boy jël na tànk ba jël na tànk ba Bily Boy bañ na waaye Bily waay eh xale yaa ngay bëre lakkantaan Bily Boy xale yaa ngay bëre ah wax naa ne ko làmb xale waaye jël ay ponkal ñu taxaw ci digg stade bi te naan léew léew léew duñu xeex duñu bëre <laughs> waaye ki may xam na boppam daw na jël ko Bily Boy lakkantaan daan na ko awaay lakkantaan daan na Billy Boy lakkantaan daan na Billy Boy lakkantaan lakk na ko lakkantaan